nee leen kaar. kaar neel mini kaar. kaar macha allah neel kalaandoo. kalaandoo neel biis. biis waxal dem dikk. dem dikk jakarta teel nii waññal. benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett. lu eh, ma neex laa reetaane. fukk. muy ñaata. ñaar fukki junni. doyal yaay boroom wañal eh waay Samba. cent waaw yaay boroom. man. yéena ko moom. léegi nag bu ci kenn jënd daal bu ci kenn jënd takkaay bu ci kenn jënd daw diw diw bu ci kenn jënd parfum jënd leen ko tisi kese kese. tissu. waaw la ca des yëpp maa leen koy joxaan ngeen def ko xanaa neex na. kon lii prière kon te kese. kese. nee kese. duñ ci jënd leneen. Eh. ay nijaay yaa mën jigéen. ah yow mën jigéen. ah yow waxaat ko waxaat ko yow. <laughs> macha allah kii da koo xam ba mu jeex. dépense. bu ma yeblu kat. pour kese. nga naan ma pour ñaata fan di wàññi saa daraja pour moom damaa bëgg ndogu loo xam ni danga may xam ni man mii ndogu naa séen rek tey ngay ndogu ndogu loo xam ne mosoo ko ndogu ci yëpp yaa wax tusi kese lañ si jënd tusi danga maa gëmu wala ah. Ah? sama jéeg yi xam ndogu naa leen yóbbu trente mille may ma bëgg nekk xaw ma ndogu loo xamante ni nii ci kàttan yàlla mbaa xam moom danaa ca ndogu ba ba yëg sama bopp dégg nga. di nga ndogu ndogu loo mosut a ndogu ci àdduna. kon nañ dem nañ dem mas asilem. acca jugal jugal jugal lu añ bi. léegi ñëw yooyu moom lu la neex nañ ko def waaye. bi nii waaw waaw. Eh. lii de laa wax. ah tey day moom yéen i teraanga dëgg ngeen bi def de ah ci kàttu yàlla maa xam tey moom dañuy ndog ba mu neex bi góor yëpp ci ndog la waaw lii maa ni soxna si na wut ay tii ay magum jëmm tii yu baax ah yëpp ay magi jëmm la waaw laa ilaaha illallah ah. <laughs> ah lii de àdduna lépp teraanga la yaa yéen i toog ah moom laa tey moom ndog di moom daa alaa daw na waaw alaa daw me na kay waaye de ci kàttu yàlla ndogalu mii moom bu dee lii rek la doo ndërëx waaw boo bëggee foo ndogo nga dellu foofa ñu la doon dumaa démb. <laughs> ma doon nettali. waaw. non damaa suuf sa ba jeexal. ay koñ boobu kay dégg naa bu tawee dana taa ndax suuf sa neewoon yëpp mbokk la ko. par maa ma nga taw mais na la teel laa gis. déggoo li ma la yow sa diggante yow sama digganteeg yow. daa dagg kii ma wékkoon nii kóllëre rek laa ci xool moo tax ma wékkoo ko nii ak gàllaay mii gàllaay sama xarita waaw waaye yow sama digganteeg yow lu jëm ci lekk ak lépp pare pare naa koog yow waaw lépp pare naa koog yow. loolu mujjul ma gi jëm yooyu. waaw merci beaucoup. Ah, te nag xoolal xa ah, yëral. ah gis nga. Oh, macha allah mbëllee wala naaj yow bokkuma la mbëllee waaye la laay raxasul ba noppi yow toogal mën ngaa toog. xëccal lii mu génn a toog. toogal noonu rek xëccal lii mu génn. magi jëm tegal tegal bàyyi lii mu def. waaw ah, kay. kàttu yàlla ak baaxam. man ah. kay bañu ma bokk bi sax. bokk fan. nga man la bokk doo ko man bañu ma man yaakaar na ne man danaa ko continuer ak yow ah man ni nga dëkkee man def nga ne dinaa ko continuer ak yow ah ci kilifa gu toll na yow loolu laa mënu galaay koo demee bii sama xarit benn bakkan fi mu toll lu ma am ci kër gi dama koy bokk ah, ndax kii a gën ah, ma trop soof nga ma trop ah. nga mel ni am nga lu ma neex ci yow. Ah. lii nga defar nii ba mu jekk orné ko ba mu orné wu nii. ah, ah cëm galaay xoolal dënd bi. Ah. <laughs> ak ni mu ko roofee. bonsoir. ah. bonsoir. ah yow ndox ngeen waxtu wala ay ja ay ja ci xéewalu ñu waay. ñëwal xéewalu. ayca bisimilah ñu leen xéewal. waaw maa ngi nii ñëw leen dong. ana man ci. maa ngi nii. samay soxna lañu. waaw waaw. dégg nga. merci. ñu ñëwoon marché si H&M leen jënd si waaw ci xadi ak kinne. waaw xadi ak yaama. salaamaaleykum. Eh? lan li lan li. kon ngeen garder ay faux billets di dem ci marché di ko jëndee. Eh? faux billets. fu ngeen jëlee loolu. ah déedéet déedéet taxawal ñun sama suñu jëkkër ji mu ñu jox de. man xoolal soxna si kii sama néeg la dugg de. xoolal fii man rek kii bi laay gis nga. kii mu ñu jox waaw waaw ñii maa leen jox kenn ku nekk ñaar fukki junni mm-hmm. pour ñu préparer seen korité ok sëñ bi looy def sama njaboot ah, waaw loolu eh, eh, eh, dara eh noppi suñu liggéey li ah. ñu def ah, xanaa xamul kay waxal waa léegi moom xanaa bala muy eh bu dul sama néeg yow eh ab mandat la kii mel ne machine la yoroon. enveloppe boobu de maa ko moom. ok kon yow da nga garder machine sa biir kër di defar foofu. ah déedéet man kay yoruma fi machine la wax dëgg yàlla. non bu ma man kay bu ma amoon ab machine xanaa ma am ay étage. ay yow yaa confirmé ne yaa jox ñaar ñi ku nekk. maa leen ko jox kay xaalis bii. li nga def nii lan la. li ma def nan. am na yow ñu mel ni yow moo yàq réew mi. xanaa xamoo xaalis bii man xaalis àggal laay. eh ba ma àggal laay. eh moom ma jël. yow noo sant ah. noo sant jaw jaw nga sant. waaw d'accord. Hmm? waaw xoolal soxna si wuy ma maam yow tëjal yi tëjal soxna si wuy ma. Eh, eh toujours xaaral ma wax la xaalis bi xaalis kii nga waxoo sëñ bi. waaw dama lay ñuus de. mën ngaa wax xam nga mën nga nag mën nga wax. dama laa bëgg a tettal tettal mooy am ci man yow ak yàlla hmm. waaw sëñ bi dama laa bëgg wax fi muy denc ay kopparam ndànk nga hmm? hmm. dama koy fexe ah, iri ko dem moom waaw gis nga fi muy tëdd waaw boo boo xëccee mat laa waaw am na lu mel ne luñ karole fan yii paase gisuñu ma ay maax yooyu di dugg Euh, waaw laa ko doon defal. Hmm. maanaam daa gas digg digg néeg ba. def fa lu mel ni aw waxande. Hmm. léegi nag am na weñ bu fa samp noonu. waaw gi ngay dugal sa baaraam rek xëcc mu ubbeewu da nga ko fekk yaari mbuus yooyu yëpp hmm. defal li ngay def ma met ko yóbbu. waaw dégg nga li ma la ah? bu soobee yàlla wala lu gën laay xaalis boobu yaa ngi koy am yow. mu ne yaa ngi tibb. ah nu ma ciy tibbee dama doon bàyyi ma dajale boo ko defee ma bala nga def li ngay def ba mu prononcé ko. ah léegi ma jël ca lu mat. su ko jëlal lépp nga am lu mat. ah ma jël lépp bul ko yërëm de. tibbal lépp sëñ bi am na xaalis de sëñ bi. ay gàllankoor fekk na ci sa kaw de saa yu génnee rek tibb na indi. wax nga ma loo xam ni waa wallaay danaa la cat danaa la gërëm jeex na ndax fi mu toll ni tonk gi ma tonk jamono yii mhm. nga xam ni maa ngi nii yoruma dërëm korite gaa ngi nii jub si soxna yaa ngi nii taxaw aw ma lenn lu ma def ak ñoom te xalaatuma ko fenn bul koy yërëm ndax yërëmu la man danaa ko meeb ndànk ànd ak moom waaw nga meebul ndànk dugg waaw meeb mag laa bi ndànk meeb weñ wax rek meeb yëpp yóbbu bul ko yërëm bul wax ko rek bu soobee yàlla loolu laa koy def yow kay noppi rek day jaay sadik sadik lu jaay ay di bordel bordel ma bañoo moom rek man sëñ bi damaa bëgg mu gaañu rek dana lu baax yéen moom. gaañoo de suñu avantage la. waaw dañuy dem boo defee li muy jot yëpp ñuy jot ci léegi daal defal loolu léegi. loolu laay def waaw léegi. loolu laay def daal ma jéem a dugg ci biir. Hmm. fe fexe wax moom. waaw waaw danaa ko waaw baax wóor na yàlla moom ka laay nii la ka laay sëñ Ndour sa taalibe ngi dem de sa taalibe ngi dem de sa taalibe ngi dem de sa taalibe mi ngi dem de